actuellement suñu problème yi moom bari na wax dëgg yàlla parce que ñun fi ñu nekk muy garage bi ay jeunes ñoo fay ñëw ak ay clients ñoo fay daje yu bari yoo xamante ni ba léegi ñun amuñu toilette. amoo leen toilette non non amuñu toilette. benn waaw amuñu toilette tey jii nii client bu fa ñëw te dafa client bu fa ñëw di jël oto soo bëggee tur ndox sax amoo foo dem si kër yi ngay dugg di dem si lu toll ni garage boo xamante ni 500 njëg njaay lañ fay fanaan chaque jour. loolu du yoon. du loolu loolu yoon te suñu njiit xam na ko. góor xuma góor xuma mooy sunu njiit te xam na loolu te mu ngi si dëgg tànkam su fekkante ni garage bi sax dugalul xaalis ñu wax waa mais garage bi dafay dugal xaalis kon ñun war nañoo mën a am toilette beneen bi si topp bi amul làmp amul làmp amul amul amul projecteur amul dara amul ndox amul courant amul sax jàkk si dëkk boo xamante ni Sénégal la quatre-vingt-quinze pour cent yëpp nekk ay léegi nag ñun loolu moo nekkoon sunu ay jafe-jafe. amuñu courant amuñu courant amuñu ndox amuñu ñu ndox amuñu jàkk mbalinu mi ngi jalu ñu ni ñëpp ku si bëgg a dem toilette si ginnaaw ngay dem wala nga dugg si këri jàmbur di ñaanal. ah bu leen dem ci ginnaaw. Ah. mais mais mais pexe amul ah pexe amul. waaw ah, pexe amul te tamit doomu aadama tamit di nga xamante ne bokkul si bu ñëwee faaw mu génn pexe amul. wala seen président dans tout ça Gora Khouma. Mhm. ndax waxtaan ngeen ci ak moom. Ah. ak yenn jéego ngeen ci def. Euh, gis nga dafa am loo xam ne si àdduna. Mhm. kenn jarul jarul waxtaan. soo soo jëlee say engagement ne mun naa laa jiite. ba ñu teg la fi nekkul loo xam ne dañu fa teg pour deux ans parce que jiit bi yàgg na depuis quatre-vingt-quinze ba léegi jamonoy Esseport xam nga loolu tey boobu Kër Masar amagul station église bi ñëwagul boobu ba léegi kon ñun ñu dem di waxtaan ak moom. Kër Masar existé wu. boobu existé wu da ngay xool fu da ngay ah, lépp àll la woon kon loolu noonu moom moo waroon jël ay initiative am liggéey garage bi ndax moom loolu la wax ni moom mën nañoo jiite moom moo waroon ñëw liggéey a moo tax ñu jël suñu suñu initiative bopp bëgg a ñëw bëgg a jëmal gaanaas bi ñun jeunesse yi fa nekk si kàttan suñu borom.